wajaatu kulliya bihamdin wa sukuur ilaa waliyil mu'miniina wa shakuur mbokk yi ñun waa unité d'alerte et de prévention ñoo ngi leen di fàttali ni feebaru mbas mi jógagu fi kon nag ngir topp ndigalu sëriñ bi na ñuy fexe di jëfandikoo masque yi di raxas suñu loxo ba mu set. kon nag nañuy wéy di jëfe ndigalu sëriñ bi muy lan takk masque yi tey raxas suñu loxo ba mu set ñu ngi leen di ñaanal màggalub jàmm wajaatu kulliya bi hamdin wa sukur ila waliyil mu'minin wa shakur